mu doonoon julit xàkkan te diine képp ñoroon ko war a def moo di bëgg yàlla bëgg gu wër gu dëggu ci nun ngir jaamu yàlla danañu ko wax topp yàlla ñu ko wax liggéeyal yàlla ñu ko wax waaye dara mënu see sotti ndara du ginnaaw boo bëggee yàlla ba noppi doonoon ku gëmoon sëriñ tuuba loolu def ko léppam. ñoo xam ne sëñ Touba rek la ñu yaakaar tey moom la yaakaar ëllëg wóolu ak gëm ak ragal ak yaakaar sëñ Touba rek la ko def. ku ñeme woon dëgg te du si rus kenn ak noo mën a toll. sëñ Touba du ci ndax ba mu ñaan ku taxul ci wetam di wax amiin sax amu ko. yàlla rek la jàkkaarloolam di wax ak yàlla di ko diis boppam di jaarale yonent bi seen diggante ba yàlla defal ko li ko defal. di yokk ak a yaatal ba ñu duppee ko le bâtisseur. fii ci Touba laalal naa ko fi ab liggéey mu jëm ci jumaa ji ko goo xam ne ñun ñun seen ñaari si danañ ci mën ñu jëm. li mu wax wala jege milliard imaam yëpp gën a am tuuti digal na tey ba bu yaakaar sëñ bi wàllu am na ko sàmm dëkku baayam bii di Touba aar ko ba lépp lu bon jóge fa. kon maa ngi leen di digal dëkk bii nu warmaal ko sàmm ko bu fi kenn def lu niru po bu fi kenn def lu niru mooy yàlla waxoon naa leen ci ne bu fi naan bu fi kenn du fi kenn tëgg tama du fi kenn sabar du fi kenn fecc du fi kenn kar ma xamal ne waxoon naa leen ko waxaat naa leen ko tey si naa di leen ko waxati léegi nag am naa pas-pasu weesu wax ji ngir dëkk bi ñun sàmm rek mooy ci suñu warugar li fi borom di bañ feeg muy nooyi dañ ko koy bañ le li mu fi bëgg feeg muy nooyi dañ ko koy bëgg le képp koo xam nag ne yii ma la wax muy xeeti mooy yàlla ak xeeti po yaa ngi ko fiy defati booy waraati seen fa saasa la ñuy defante yow teg nañu ci sama bakkan képp ku ko fi defati daal ne lay wóor ne musiba ma lay dal du yoon moom daati moom saayir lay doon ngir fa saasa la la tàndal may jàpp ci ne lay wóor ne ci kaso ba nga jëm wax ju wér te leer fa moom la mën a yam yéen bokki taalibe yi ma nuyu leen waxtaan ak yéen waxtaan ne dama bëgg ñu taylu ko bu baax a baax ma wax ko waxin wu leer ba booba fi bàyyi ko kenn du ni lii la jublu woon a wax mbaa lii la lii la fasoo a wax mbaa lii wax dama ko waxal sama bopp tojal ko sama bopp leeralal ko sama bopp boole woon tarixe yépp def ko muy benn murit la du tiyaan la du xaadir la kooku ko waxe diggante xeex ñun ñett ñu bokk ndey ak bàyyi daal kenn mu caa tam sa maam ragal ko ñeme la kon nag def leen benn boole leen laat fit buy bari lool fulla ji bari lool fayda ji bari lool ba tax saa su doon yëkkati kàddoom askan wi jàpp ni day xuloo baa dafa mer man lay def bu ma waxee ci kaw ñu ne day xuloo bu ma waxee li nu war a def ñu ne daa mer ma di xamal nag ni leen xuloo ak mer duma ko ci def feeg may dund ndax xuloo moom li koy waral xam naa ko ñaar ñu déggoo di ko rekk xuloo te man duma xuloog buur duma xuloog baadoola duma xuloog mag duma xuloog ndaw njëriñ yi war a tax a xuloo moom du jaar sama digg ak kenn xëccoo njariñ wala xëccoo daraja moom da ngay téye déggoo ba wax tax di xuloo te war na ceer ni duma ko dafa kenn mer bu ngeen gisee ne jàppee ne mer naa déedéet damaa am lu ma naqari mer moom dara mënu ma koo tax a def lu may gis rek lu naqari yàlla lu ma mënta faj loolu it daf may naqari ngir la ma naqari yàlla dong waaye nag du tee dinaa xam ne inna minal mujrimina mun taqimoon yàlla bi mu ko waxee boo gisee kuy def loo xam ne lii neexul yàlla it wala naqaree war nga ko war ngaa mën a gàttal naqaree yëgul fen man du mer du ma xulóo dama ko dëral loolu leer leen